wala dafa ñëw dab ah dafa ñëw dab leen ci loo xamantene ni ñoom ils avaient pas prévu ça. Euh, ñoo ñaan la. mooy mooy euh, Ousmane je parle de de Ousmane Sonko et son projet parce que dégg nañ mu génn wax ne euh, complot d'État la et tout li li li mu bëggoon xam mooy est-ce que dafa bokkoon ci projet bi wala est-ce que c'est venu à l'improviste comme ça manam est-ce que dafa doon lu leen bett loo xamante ne nii yaakaaruñu woon ne euh, lii euh, ni na demee nii. Euh, gis nga grand boo xoolee sama première émission bi ma def à Leral TV mooy c'était je pense le 17. Mhm. le 17 mars xaw ma le 17 février le 17 février je crois. Mhm. mooy mooy la première déclaration d'Ousmane Sonko la boo demee nga xool ko nga seetaan ko. Euh, da ngay euh, da ngay da ngay dégg fi may waxee naan il est très tôt Ousmane Sonko yóbbu affaire bi ci champ politique erreur boobu la def. kon yow loolu wax nga ko avant avant dara di. non dinaa la dinaa la envoyé vidéo bi dinaa ko dagg ma yónnee la ko. je l'ai dit bi mu paree rek juste ci plateau boobu noonu. déclaration boobu je pense que c'était le 17 février. moi je l'ai dit ma ne leen il est très tôt mu yóbbu ko ci ci terrain politique parce que Macky Sall moo complot loolu dafa yomb li ñuy xaar mooy mu wax ñu ndax dem na fa wala dem fa. ah mais mais moom nee na woon am na am na ay preuves ah moom loolu la waxoon de nee na woon am na ay notamment avec euh, avec l'avocate là avec euh, ak ñu bëri ñoo xamante ne nii tudd nañ leen si euh, ba wax ne il a des preuves qu'il peut qu'il peut poser sur la table. chaque gis nga l'affaire de suite Beauté là état bi moo ci moo ci moo ci taxaw tax waayu cuune motax mu c'est l'état hein c'est l'état qui a failli loolu nga nga oui oui oui si si si si Est-ce que ça n'a pas été fait d'une manière à préserver, les, à, gérer la, la sécurité des, des biens et des personnes Est-ce que ce est, n'était pas une stratégie étatique C'est-à-dire, hein? c'est-à-dire, du côté sécurité, l'État mm. avait taxaw na ba mm-hmm. Mais dama la, du côté stratégie politique. Mm-hmm ci côté stratégie politique état bi daf ci faillir ci dossier Sweet Beauté. mais mais mais nan la ci failliree mu mu mu nan la nan la état bi lu toll ni état li nga lu toll ni loo ni euh, c'est c'est géré par ce qu'on appelle le le chef suprême. koo xamante ni bu nee a ñëpp ne a la état nan la mën a failliree nit boo xamante ni il est euh, en quelque sorte il n'a

démonter li nga xamante ni moom mooy li Ousmane Sonko di wax ne du complot et pourtant ñoom ñëpp xamoon nañ ne du complot mais koo ci woo danaan la non Macky Sall nee na bu ci kenn wax maintenant Ousmane Sonko a créé une affaire dans l'affaire de sorte qu'on ne qu'on ne parle plus de la première affaire affaire bi mu créé mooy fexe na ba politiser le le le truc jël lépp teg ko ci ici Macky Sall di cité ay tur ay Mamour Diallo di cité ñe waaw am amna ne pour mu politiser l'affaire non dañ ko politiser allo allo mooy faiblesse état Sénégal oui mhm, mhm. politiser parce que ne buñ ko politiser rek dañuy parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas te bo génnee tout tout ben arsenal ñoo and ak ñoom dañuy ñoo ñoo ak Macky Sall dañuy dugg ci suufu ron lal mais mais mais mais est-ce que est-ce que ça valait la peine de politiser cette affaire euh, euh allô allô allô allô allô Allô Alors, on a été coupé. On a été, euh, on a été coupé. Oui, euh, on, termine, on termine très rapidement. Excusez-moi.

Uh-huh. Euh, euh, je suis vraiment désolé. Mais est-ce que, est que ça valait la peine de, de, de, de, de politiser l'affaire, sachant qu'il avait un dossier solide Mohamed Teneni, il l'a dit ouvertement et en publiquement, Warné. Euh, amna dossier médical bo xamantene mi ngi ni limu fu doon yobbu moy moy faju j'ai tous les justificatifs te buñ ma wowe buñ wowe ma joxe donc est-ce que ça valait la peine de de de, de politiser cette cette affaire là waaw mais grand du moom moo toog fii ne yàkkamti naa procès jot procès jot ñu woo ko ñëwul procès lu tax ñëwul ci procès bi. ah c'est c'est c'est une question que tout le monde se pose. Ousmane Sonko bu ñëwoon ci procès bi <laughs> Ousmane Sonko bu ñëwoon ci procès mm-hmm. loxo dina dar dina dar gémmiñ. Ah, ci ci ci naka ci ci ci naka. non ci sur beaucoup de choses des éléments mais am na lu am na lu mais boo liiree réquisitoire bi. Mm-hmm. ci bi ñuy condamné Ousmane Sonko ak ni mu décrire acte yi nga xamante ne moom la doon amaal moom la doon moom la doon am ak Ousmane ak ak ak Ndaw si saar mhm. di ko décrire. Mhm. da xam ne kii am na lu mu gis moo tax mu ko mais mais mais am na am na am na lu am na lu mu gis comme lan parce que ñu bëri jàpp nañ ne et ba ci ñoom liñ génnoon doon wax au début dañ doon wax ne waa ji moom euh, xamul yooyu du du du doxul ci yooyu moom julli. ah ah jàkk ja ak entraînement la xam ñu dem ci biir ñu wax ne ah, dem na fa mais euh, sekkul at euh, sekkul at ndaw si dara euh, ñu dem ba ci biir <laughs> ñu ñu wax ne même bu sekkeek ndaw si dara sax madame violé wu ko kii wu ko comment on peut lolu buñ ko jëlé déjà ça fait bizarre il y a lieu de se poser des questions mais est-ce que réellement yow jàpp nga ne bu fa tegoon tankam euh, ni nina ni nina ni doy waar ni na demee est-ce qu'il a fait le bon choix Ousmane Sonko non il a fait le bon choix de ne pas venir au, au procès ça on je te le dis il a fait le, la, le meilleur choix de ne pas se présenter au procès le meilleur choix yow da nga jàpp ne dafa am yuñ fa yuñ fa euh, hein il a fait le meilleur leur choix waaw mais <laughs> grand xam nga man xaaral xam naa li bëgg li nga bëgg ma wax ko xam nga man mhm. maa njëkk a toog maa njëkk toog ma ne il y a des vidéos de Adji Sarr et de waaw ah, loolu loolu moom ñëpp dégg ko am na ci benn audio boo xamante ne sax ñi lay dégg voilà am na te newoon naa fii ne buñ bu ñu ma woowee en tant que témoin ci procès bi damay dem waxoon naa wax waxoon nga ko loolu man dégg naa ko mhm. comprendre nga moi je l'ai man xam naa j'ai eu la malchance j'ai eu la malchance là retrouver parce qu'après, les li ma j'ai eu la malchance d'être l'un des plus le le l'un des journalistes yi nga xamante ñoo à a ak Adji wan ma ay affaire mu wax ma ma dégg wan ma ma gis hmm. mais mais mais japp nga Ousmane Sonko euh, li ngay wax bu bu est-ce que est-ce que teg na ci bëtam ba tax mu bañ a dem wala jàpp nga ne. parce noo non xamul noo hmm. dafa xamul li gaa yor moo tax ñëwul. Hmm. xamul li yor. mais xam na réellement que y a des choses ci ci ci ah. am xam na ko non xam na ko parce que xam nañ ne benn Momo Cissé bi nga xamante ni tekkiwul dara ci dëkk nekk fii di wax lu rëy lii gaa yi toog di ko seetaan procureur woowu ko. juge bi woowu ko moom ay avocat am woowuñu ma avocat Adji Sarr woowuñu ma ñu bàyyi ma may wax kenn dégluwu ma bàyyi may am si mi doon wax na am na ay audio xam nga vidéo ah, loolu moom ñëpp dégg nañ ko moom dañ koo waaw léegi moom dañ koo boolee ci ci moom dañ koo boolee ci ñu tuddati ci ci témoins yi mu daw ñëwul mu dem États-Unis kan kan kan si kan si ah, bàyyi may MC waa waaw tout à fait loolu yàggul

affiche biñ doon projection biñ doon def au niveau ah, de hein yooyu yëpp ay sóob la woon noonu rek dañ doon title gars yi dañ doon kii mais mais yooyu yëpp amul ki doon ki jël kamil di wat koku tu prends tu prends ay watam au second degré parce que kilifa mo tok bi nga xamante ku maîtriser alcorane la nga xamante nit ñëpp xam nañ ko ci jaamu yàlla hmm. ku mën jang alcorane la machallah allah Ousmane Sonko deg alcorane hmm. moom moo toog mu ne Oustaz Sam moo wax ne ko mën nga dem ci lii bu nga xamante ne ay jigéen kese ñoo fa nekk ñu maase la saawaay. waaw neen dafa dafa génn dafa génn woote ñu ñu ñu ñu. les les masseurs les masseurs les masseurs masseurs yi nga xamante ne ay professionnels lañ. Mhm. xam nga ñaata la ñuy fayee ko par séance. de massage mille francs la ñuy fayee ko par séance bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñu ngi ci hôpital di di di maase kinésithérapeute. su mhm. fekkee dañuy déplacé wu quinze mille francs la bu dee yow yaay dem à l'hôpital c'est dix mille francs. message massage thérapeutique la lay wax ni demal hôpital principal ki nga xamante ne mooy mooy c'est un xaw ma commandant xamatuma commandant la xaw ma mhm. euh, moo nga xamante ne c'est un masseur professionnel mhm. moo daan massé Ousmane Sonko élection deux mille dix neuf te góor la góor la léegi yow ñu fekk ñu ne la léegi demal fi jigéen ñi fi jigéen ñi nekk nga xam ne ay jigéen kese ñoo fay nekk nga xam ne ay deux pièces la ñu sol yow sa imaam ne la maa ngi laaj ci imaam boobu tey nanguwuñ ma kaa wax sa imaam ne la demal foofu noonu ñooñu noonu faj la te duñ sa jabar yow bi ngay dem àndoog sa jabar àndoog sa chauffeur àndoog sa àndoog sa. mais y' a y' a y' a beaucoup de personnes qui sont posées cette question ñu ne lan moo tax àndul ak kenn bi nga xamante ne nii. Euh, doon na dem di faju foofu. saa bu fay dem du ànd ak kenn saa bu fay dem du ànd ak kenn maintenant nag maintenant nit ñi nag lu leen neex ñu wax man ñu bari doon nañ wax naan. même ba ci waa APR dañ maa ñu ci bari dañ ma woo ma saaga naan ma non lii du dëgg yow da mën a lii hmm. génneel vidéo bu dee am na ma ne leen hey c'est pas à moi de faire sortir des vidéos hmm. te su ma ko téewoon suma téléphone bu ma ko génnee parce que bu fekkente ne da ngeen bëgg a yàq nit ki man nekkuma dans des combats politiques benn ñaareel ba aussi vidéo bi dafa am keneen ku ci nekk muy beneen jigéen ma ne ko kii kii ku góor ki ngeen bëgg a yàq muy Ousmane ko dafa am yaay am jabar ay jabar am ay doom

et d'après euh, li li nga xam jàpp nga ne nañ ko nañ ko teg. bu ñëwoon bu ñu ko laajee ndax seq nga ak xale bu jigéen mu ne déedéet ñu ne ko date sangam est-ce que seq nga ak moom dara. Hmm. maase wu nga fa mu ne waaw est-ce que seq nga ak moom dara ñu ne déedéet ñu projet vidéo bi ne ko lii ban date la woon. <laughs> xam na gars yi dañoo ñu bari dañoo yaakaar ne vidéo boobu xam nga man j'avais tout dit j'avais fait le serment de ne plus parler de vidéo parce que sama problème àdduna vidéo moom koy indi

génn ci ba set wecc man ma ne léegi comme man wow ñu en tant que témoin sama yoon nekkatu ci dootuma wax ci vidéo dara la ma ci doon wax wax na ma may may jégu ma euh, may vraiment may jégul waa ah, moom vraiment non non mais grave mais il ma leeral sa sa internet yi lay mm-hmm, mm-hmm. c'est-à-dire mbir mu existé la génn naam génnul man loolu ñoo après ci ñoom ñoom la des ñoom la concerné ci loxo kan la nekk loolu ñoom la concerné mais man li nga xam ne gis naa ko te xam naa ne lu am gis naa ko wax naa ko. am ça ça existe donc donc da ci texte sa bët ah, ku mu neex na nga taxaw waat ne. Mhm. voilà ku mu neex na nga taxaw waat ci yàlla ne loolu amul booy bi day day fen bu ko neexee bu fekkente ne am na nu ko génnee ku mu neex nga taxaw wax loolu mais la ma ciy wax ak la ma ciy gis wax naa ko ci ba pare. parce que wax naa la ne la j'ai eu la malchance d'être le le premier journaliste bu toog ak aji bu mhm. dem bu dem village am def fa reportage jóge fa ñëw toog ak moom ci néeg ah dem nga village am ak man moom ak ak keneen ñu toog wan ma ay mbir gis ko ma xam ma wax ko léegi wax boobu nag su dee bu doon tey du ma ko wax mais quand dama ne la loolu lu existe la te te buñ demoon ci jamono jooju buñ demoon procès waa ji ñëw taxaw procès ils vont projeter ça xaw ma ndax di ngeen ko gis bu boobaa wala di ngeen ko gis wala di ngeen ko gis mais quand lu lu lu lu lu existe la lu am la Moi, moi, en tout cas, moi, je, je, je suis vraiment désolé de, de, revenir sur ça avec tout ce qui s'est passé. Euh, mais, mais, mais honnêtement, hein, man, man, mon gëm la sur sur sur parole man gëm naa li ngay wax euh, xam nga magum jëmm bu toogee wax ne man maa ko gis maa kenn c'est moi qui l'ai vu mu lolu <laughs> pour que pour que dindi ko teg fa leneen day jafe mais mais mais dafa am ñu terminer foofu dafa am ñoo xamante ni ñu bëri loolu bi mu amee dañ génn wax ne euh, waxuma sax dafa am mbex luñ la jox mais dañu wax ne am na ñoo xamante dañ doon jaar ci suuf di la proposer ay ah euh, lu ci mel ni xaalis walla leneen ak leneen pour euh, nga won leen vidéo boobu est-ce que loolu est-ce que loolu am na. non loolu amul. loolu amul. c'est vrai que c'est vrai que am na ci ñoo xamante ni. Mhm. biñ déggee sax ne man proposé nañ ma affaire yi noonu woo nañ ma woo nañ ma ne bu fekkente ne da ngaa yor vidéo je te conseille. nga xool noo ko def nga mhm. xool soit nga joxe ko ma ne leen non man yoruma dara man yoratu yoratuma lim man bàyyi yoruma quoi yoruma vidéo bu leen ma waxu vidéo mhm, affaire yi mhm, am na ci ñu nga xamante ne tamit euh, woo nañ ma menacé ma yooyu yëpp am na ci camp pouvoir bi am na sax ñu ma ci woo bi élection yi bi bi bi bi procès bi amee ci guddi gi am na ñoo xam ne dañ may woo di ma saaga naan ma génne vidéo ci camp pouvoir bi mais mais mais mais Momo mais, ci kaw ci pouvoir bi c'est-à-dire mais mais tamit c'est c'est c'est une bataille euh, politique il faut comprendre les choses de cette manière c'est c'est une bataille politique. politique ci politique lañ mm. man après ma mm. man ci combat ci politique fayuma autorité fayuma autorité joxuma mm-hmm. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. mais ABG. mais mais mais excuse. Euh, ñuy wax naan dañ maa proposé cent millions ma bañ. au même moment sama yaay woo na ma ne ma saako ceeb bi dafa jeex may lijjanti lu ma jëndee saako ceeb sama rakk bi nga xam ne dafa nekk Pastef mu dugg seen groupe gars yi di wax naan kii jot na cent millions affaire yooyu noonu mu ne leen kii yaayam moo ko gënal lu mu am yaayam woo na ko si laaj ko saako ceeb. ça fait ci ci même période bi ci même période bi grand bu ñu ma proposé woon cent millions dama koy jël loo foog dama waaye yow cent millions grand xamul cent millions. <laughs> loolu moom dégg naa nga wax ko loolu moom <laughs> mais bien sûr mais bien sûr mais mais mais non vraiment vraiment c'était c'était un plaisir vraiment deux mille jël nañ sa temps waxtaanee mais mais mais dama bëggoon terminer rek at benn benn kii li li li li li Pape Cheikh Diallo doon wax naan naan dank fanaanal ñu ñu ma ma terminer at benn benn affaire c'est-à-dire waa ji li mu Ousmane Sonko ba gisee génn démenti yi at waat yi at kaamil yi at wax yi at live yi at kii yi maanaam c'est c'est du yomb gëm du yomb gëm que que que vidéo am na am bu ñu gisee euh, en parallèle comment il sortait comment il hein, waat yi ni mu doon défendre euh, loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy politique loolu mooy politique bi nga xamante ne def na ko il a fait croire à tout le monde qu'il est un qu'il est un saint homme du def yenn affaire yi alors que Euh, dem na ci ci ci ci ci ci ci ci place bu nga xamante ne ñun ñëpp xam nañ xam nga man yàlla dafa dogal fi ma doon liggéeyee ak Sweet Beauté ñoo jàkkaarloo. moo tax ah, ma teel a xam Sweet Beauté journaliste yu bëri maa leen moom fu Sweet Beauté nekk journaliste yu bëri photo boobu nga gisoon à la une yi taf photo Sweet Beauté bi. man maa ko voilà donc man maa leen wax fi Sweet nekk journaliste yu bëri maintenant nag euh, mooy li ma la wax cuune bi nga xamante ne état bi cuune na ko. toog feral Ousmane Sonko mu def lavage de cerveau askan wi euh, euh, jeunes yu bari top ko ci ay déclaration parce que Sénégal ay déclaration la da ngay wax ñu gëm la mais tey ñaata nit ñoy tok ci plateau wax mu leer na yow ki limi wax ni du dëgg ba paré nit ñi mom lañ jox bopp mhm. je prends l'exemple de d'un chroniqueur bu nga xamante tok toog na fi wax ne euh, Serigne Mountakha té biñ tëjee Ousmane Sonko def na semaine koku tok né Serigne Mountakha demb lay doog a yëg ne nañu Ousmane Sonko mais, ça, c'est grave. C'est grave. Moi, je me rappelle hein, de, ça. Exemple, il a réussi à avoir ses propres daf leen di fay ak seen i chroniqueur mhm. état bi am na ay journalistes am d' accord mais Ousmane Sonko ni mu def mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak moom ni ñu def mooy les chroniqueurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci télé yëpp mhm. dañ leen jël def leen seen poche mais tous ces chroniqueurs là mais récemment am na ku ci génn wax ne dañ ko dañ ko doon jox un million cinq cent récemment am na ku ci hein ah pour dëggal rek li nga wax dama ne tous ces chroniqueurs là qui parlent en faveur d'Ousmane Sonko di mhm. tirer chaque jour ci état bi nga mhm. xamante ne ñoom bu ñu waxee da ngay xam ñi fi ñu far. Mhm. tous ces chroniqueurs là dañ leen a jox ñu téye nag yow boo waxee loo xam ne arrangé wu leen dañ naan yow dañ naan yow dañ laa jox nga téye wax naa leen ko un jour nee leen man li may dal ci kaw état bi moo ëpp li may dal ci Ousmane Sonko. Mhm. mais waa état bi li ñoom li leen arrangé mooy li may wax ci Ousmane Sonko loolu rek la ñuy parce que gars yi léegi ay vidéo yu courte rek la ñuy man du ma dagg benn vidéo du ko dugal sama page di wane ne attaqué naa kii wala attaqué naa kële mais gars gars respecté. et quand quand je regarde le chat là vous chat bi lire commentaire mais. mais mais mais gars respecté que que vous avez été toujours été vous-même que toujours constant. du ma ci am teraanga mais toujours je reste sur ma position mhm. samay morom nañ dawal ay 4x4 wala ñu tabax ay gratte wala dara loolu xam nga lan moo xam nga lan a neex ci àdduna mhm. mooy nga tëdd boo tëddee guddi nga nelaw sa xel dal boo fayee ko par weer man damay ki may fay par weer weer bu dee su ma jëlee ba jox suma njaboot bu leer ma ne lii ma leen di jox dafa leew lu leew la ci ay ci valeur yooyu noonu laa dëgg la dëgg la te te boo ko waxul sax boo ko waxul sax xam nañ ko <laughs> bon. non, mais vraiment, c'était, c'était un plaisir. Vraiment. tout à fait tout à ah, fait. Non, mais hein. vraiment, vraiment, vraiment. loolu le ko waxul ñun xam ko ak ñeneen ak ñeneen et même quand quand on dit Mohamed Rasoul wala moment si c'est voilà wax moi dignité hein aussi fonk rester conscient sur sur ce qu'il ce qu'il dit ce qu'il fait man maintenant. D'avoir changé aussi, as toujours été, vous avez toujours été, été, été, été, été la, même personne. Donc, ça, hein, nous, nous, Donc, et vraiment, moi, il tout le temps, il y a le Et tout ou tard, tout ou tard, voilà mais li mom et je pense je pense c'est important mais vraiment Momo ñu il lay jaajëfal di la remercier hein de amuñu sa fay et vraiment man honneur le pour man début bi honneur mais honneur bi <laughs> honneur parce que même avec la communauté là ni Momo et tout ñu lire commentaire mais maanaam am na am na am na fu la teg hein? nga yëg ko nga bañ ko yëg nga xam ko nga bañ ko xam am na ay nit yoo xamante ne nii am na fu la teg am na fu la am na am na am na nu la jàppee et je pense que c'est de part Euh, depuis le début et loolu c'est c'est très important yàlla du ko jox ñëpp et vraiment honneur bi man la man maa ngi lay jaajëfal di le remercier et à travers aussi la communauté donc di ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal di le di le remercier moom hmm, bu baax non c'est moi qui qui qui vous remercie ABG parce que honneur le pour man nga may ma tribune bi nga xamanteni tribune bi yaañ la ma ci ma ci wax donc n'hésitez pas à à chaque fois nga soxla ñu waxtan ci ben sujet mhm. muy politique géopolitique euh, euh, muy société muy environnement ci lépp lo bëgg ñu waxtan boo ma woowee rek inshallah allahu rabbi je serai open voilà bah, merci merci beaucoup <laughs> <laughs> merci beaucoup c'est très gentil non non ni nañ defaat ni nañ defaat ay yenen yu yu yu am solo inshallah ni nañ defaat bu ko bu ko jot bi tamit sa temps euh, ni nañ ni nañ defaat yeneen yu yu yu yu kii moomu ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax nga tàggu gaay yi ñu ñu kii ah nga nga tàggu yi merci beaucoup moomu waaw di jërëjëf di di di bëgg rek di ci ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla may ñëpp jàmm may ñëpp tawféex mm-hmm. yàlla jàmm ji nga xamante ni moom la def Sénégal yàlla bu ko dara dindi amiin di ñaanal aussi suñu kilifa yi parce que kilifa diine yi ñu jàmbaar rek dañu liggéeyal yàlla ba yàlla may ñu li boo gisee Sénégal li ko wër yëpp na c'est parce que dafa am lu fi nekk loolu fi nekk nag ñun ñoo ko war a préserver muy yow muy man muy ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay seetaan ak ñëpp ñun ñoo war a préserver loolu bu ñu xaar dara ci kenn kii jox nañu dañuy wax wala kee bu ñu xaar dara ci kenn dañuy ko def pour la république parce que demain demain mhm. Mhm. nous allons partir et nous allons nous, nous, nous, nous, avons, nous allons laisser ce pays-là avec nos enfants et nos petits-enfants. Mhm. dañ ko ci ay loxo yu Il va falloir que koy loxo doom wala nous loxo ñu teg ko ci seen loxo yu baax bu ñu dara jaral ñu ñu ñuy suñu réew parce que ñun moom lañ am ñeneen ñi am nañ ay passeport diplomatique bu réew mi yëngoo dañuy génn dem mais ñun fii la ñu dëkk amuñu fu ñuy dem tey bu réew mi jaxasoo woon saa waay man Pikine gi laay dem làqatu wala ma dem làqatu Medina Yoro Fula biir Sénégal la man ma dem Medina ah. <laughs> voilà donc donc nañu fexe ba ba ba hmm. li fi li fi mag ñi suuxat hmm. mag ñi liñ fi suuxat bàyyi ko fi nañ fexe ba préserver ko yàqoo ci donc appel bobu lay lancé à tous les jeunes di ñaan yàlla jàmm bi nga xamante ni moo yor jàmm di ko ñaan jàmm mu gën ko wasaare ci Sénégal mu gën ko wasaare ci àdduna wërngal képp yow yàlla may la tawféex ba lépp loo bëgg ci li ngay def yàlla defal la ko ci barke ci yàlla moom saa ci weeram ñu bokk lépp kontaan naa merci beaucoup Momo merci beaucoup à la prochaine donc gars yi tey après ngeen wax ma hein, <laughs> après ngeen wax ma live bi nu mu nu mu mel nu mu demee après vous allez me dire en commentaire et vraiment on a eu des des soucis techniques mais mënuñu ko woon bañ a rëb mënuñu ko woon bañ a def hein mënuñu ko woon bañ a def am nañu ay problèmes techniques et euh, on s'est dit qu'il qu'il fallait ñu ñu ñu def live bi quoi il fallait ñu def live on a eu des problèmes mais je pense qu'il est important moi, nous devons et que prochaine fois nous devons et euh, désormais on on fera des émissions de ce genre et on va ni sur la table on va les sur la table nous hein, avec euh, ay ay et personnalités ay journalistes ay chroniqueurs hein. et désormais ça va se passer ça va se passer comme ça du tere en parallèle ni lañ def suñuy suñuy live hein. la famille entre nous, ni lañ def suñuy live ni lañ loolu loolu c'est c'est c'est important donc Momo vraiment et moi je profite encore une fois euh, du le di le jaajëfal di le hein, déjà pour disponibilité bi pour échange bi hein, pour pour pour euh, at at le fait d'être humble et ça, c'est très important pour une personne. Yen euh, xam donc euh, vraiment nous ngi remercier ci C'est te lépp lu mu fi ñaan tamit ah borom euh, et sur sa famille. donc Gaï, je remercier ñëpp di tout le monde ñi fi nekkoon ba heure bi la famille avec Moussa Ami Fof hein, Soukay Abdoulaye Ngui n'y hein? pas rek tout le monde euh, Momo il mérite le poste de conseiller spécial <laughs> hein? et c'est la vérité hein, c'est la vérité euh, euh, il est très très pertinent il est très pertinent donc Guy, merci beaucoup Moussa Aminata hein, n'y tout le monde Amia euh, modératrice tout le monde la famille donc bëgg di noir wax euh, à demain hein, pour euh, un prochain un prochain live Il moom continuer donc on va faire et am na tamit lu ma est-ce que l'ol je je pense c'est mieux ñu def ko sondage sur la chaîne et gars yi wax si est-ce que vous préférez ñu def round-up après ñu ñu ñu wax si sujet euh, défini ça c'est par rapport au live beaucoup d'émissions sur la table wala est-ce que dañu bëgg ñuy wax uniquement hein, sur des sujets prédéfinis comme ni ñu ko defee at euh, euh, live précédente bi sur euh, sur Tivaouane donc lolu yeb après nañ def ay sondage nga xamante ni nii hein, gars yi nañ ci mën joxe sen xalaat ndax lepp lu ñuy def rek pour ñun le pour la famille et dañuy bokk jël ay décisions ensemble donc je vous remercie hein, tay tata sumuta gis moro mais en tout cas remercier naa tout le monde Dylan noir, passez une excellente soirée que Dieu bénisse le Sénégal que Dieu vous bénisse et votre famille Je vous dis à la prochaine allez ciao ciao